ñew nak ne la kayma la bal 300 millions yo xamne ci juroom ñetti at la la koy jox pour nga liggéey koku bëgg na la jappalé parce que xamna ni sonu nañu xamna ni tay ñun suñu activité yëpp dafa taxaw ren amul ben organisation bu nekk ci renofis bu def chiffre d'affaires et pourtant ñu ngi continuer di dépenser ñu ngi continuer di fay loyer ñu ngi continuer di fay ndox di fay courant di fay téléphone di fay personnel nek ay charges de fonctionnement yo xamné ñi ngi koy démé mu metti lool nak mais kenn déggul ñu jooy kenn déggul ñu ñaxtu parce que dañoo gëm ni natt la bu suñ borom wàccee ñom nak li ñu jot def dal na suñu xel parce que kula dig kula jox ndékki bu la diggee añ nga war ko mëna gëm ñom jox nañ ñu ndékki jox ñu añ kon ñu ngi xaar reer bi xaar reer bi nak moy partenariat bi ñuy def ak ñom ministère du tourisme li mu bëgg moy nit ñi gis li rafet ci Sénégal gis li nit mëna a euh, Euh, euh, bëggee ci Sénégal gis li nit mën a ñëw euh, nawee ko Sénégal ñu ñëw woo leen ne leen kaay leen kat ñu ànd ñun ci suñu biir réew déjà parce que tey bëri na sénégalais yoo xam ne xamuñu sax li ci biir réew mi tey ñun ñëpp ñu ngi dégg ni Sénégal tourisme local bi tey gis nañ politique bi ci état bi mettre en place actuellement Covid bi tax na ba kenn dematul bitim réew mais di ñu gisee ni potentialité bi daf fi bari ñun tourisme religieux bi aussi même chose bi la dañu gis ni fii li fi nit war a mën a gis bari na tey ci ñun ku ci ñun jàng nga li nga xam ne moom mooy histoire Maba Diakhou jàng nga histoire Serigne Touba jàng nga histoire Seydi Hadji Malick tey ñëpp dégg nañ ay njaarnda ñëpp dégg nañ ay ay euh, fi Maba Diakhou nekkoon ñëpp dégg nañu Bandiagara ñëpp dégg nañu sama village ba ca Fouta ñëpp xam nañ ni am na potentiel yu fa nekk mais xamuñu ko xamuñu ko tey ñun ñi nga xam ne dañ nekk ci tourisme religieux bi nekk ci di ci yëngatu parce que ñun suñu activité dafa am dimension spirituelle bu am importance kon ñoom buñ ñu woowee ci tourisme culturel boobu nga xam ni tourisme religieux bi daf ci amu ko wàll pour ñu ànd ak ñoom liggéey waxtaan ak kilifa diine yi wan leen ni tourisme bi lépp bonn ci am na loo xam nit ki mën na cee ñëw jàng ci jëriñu ci xam ci yeewu ci dafay nekk loo xam ne gëm naa ni partenariat la boo xam ne war na mën a dem li ñu war a mën a wane ci biir réew mi ak tamit li ñu war a mën a wan ñeneen parce que ñun chaque jour ñu ngi ci biti ñu ngi jëfalante ak ñeneen mais xëy na dan daan dem rek ñëwaat lol tamit dafa jar buñu éggé eggee ñu nit nek fa benen ambassadeur ci wenen wall di leen wax ni kat ñun kat suñu réew dëkk bu rafet la dëkk bu am cohésion la dëkk bu am coexistence pacifique la dëkk bo xamné lu nit wara mëna gis lu bari la ñew leen ngeen di ko xool ñëw leen ngeen di fekkee ci événement yu mag yu melni ni touba Touba gàmmu Tiwaawoon ñi bëgg ñew ñu organiser leen ñuy mëna ñew parce que yoy yëpp aussi logistique la bo xamné ñun am nañ expertise mobiliser ay nit indi leen loger leen encadrer leen donc ku ko mëna def lol nak te bitim réew war koo mën a def ci lu yomb ci sa biir réew te ci dynamique boobu la Renofis taxaw fas yéene ci ànd ak ministère bi ñu leen di sant encore un fois di leen gërëm parce que nag seen taxawaay rafet na